salaamaaleykum mm-hmm. Gambia Sénégal yëpp maa ngi defati beneen vidéo waaye vidéo bi nag Sam Sarr Sam Lobsa Sarr New York City moom laa ko defal Sam Sarr ñàkk nga jom vidéo bi yow laa ko defal de defaluma ko kenn Sam Sarr dofuloo nit njaay nga xam nga li nga war a def boo waree lekk xam nga boo warta lekk xam nga yow saam yow am nga xol yow yaa ngi remember bug ba nga bindoon history yaay jamee yow fen dafa xëy dee rek nga juddu fen dellu si saam saar yaa ngi fàttaliku bug ba nga bindoon pour yaay jaane nga wax li yaay jaame def yëpp because yaa ngi ama moom problème nga gestooti dellu ne bug bi li nga bindoon amut yow nit nga Sam Sarr nit nga dangaa dof doflu yow xam nga li nga war a def ak li nga war a def bu la ko nit ñi waxut sax xam nga ko yow yaaga naa laa déglu yaaga naa laa folo yaaga naa déglu sax yi ngaa def nga nekk di xuloo ya Gambien si media bi yow Sansar who the hell are you di nga neex yaa ngi New York City maa ngi Dallas Texas te man ragaluma la Sansar man la ay daray li Amérique am na lu waa bu la naqaree nga yóbbu ma koor ragaluma ci dara nag maa ngi suma démocratie loolu Gambie ngaa dem di jaxase nit ñi ak yaay jaame bugaloo am yow yaay jaam yow yaay saay saay yaa way yaay yees yaa Sansar yow bi yaay jaame di jàpp suñu jigéen yi di leen def si kaso bi. ngay dem di wax ne jigéen ñi lañ bokk si protest bi yow who the hell pour nga wax loolu yaay jamee yow ase doomi Gambian Sam yaa juddu si gëlëm nampa ci mbaam yow amuloo rusukaay amuloo jom yow xaw ma si famille ban nga bokka waaye xam naa nu roowuloo sa waa kër yi because dañ la dugal pour nga liggéey United Nation yow yaa yaaya jaame em dof ngeen dof bu wér kenn du ko faale vidéo bi nag yow laa ko defal dimanche tey ji dama la ofal vidéo bi bu la naxaree di nga ko déglu oo ku la jege dina la ko share di nga ko déglu loo ci xam nga contact ma maa ngi Facebook Aïda li man ragaluma la nga ñàkk jom toog si media bi di xuloyal nit ñi ndegem yow mi góor yow yaa mun a daga sante sa katumaa jigéen yow yaay ñàkk a fayda yow yaay góori Gambien bu dellu gannaaw yow yaay xaj yow jaruloo dara yow nit nga suñ jëloon sa jabar teg ko si kaso bi dina la nee ngay gën a ñaangal affaire yi di wax yaay jame ne kooku dafa bokk si protest bi kooku xanaa amul right pour dem Banjul te bi oppose pour dem Gambia pour dem Gambia yow moom Gambia yow yaa jaame xam nga lu ma la waxal gis nga yaay sa nguur gi ñu doon xeex jeex na nguur a fi jeex ñii tey depuis on the fourth décembre fi nekka nekk nii lijjantil fooy liggéey bu dee wool maa ngaa dem pour ñu xaaya la nga dem def application ndax décembre bi ñu ngi soxla ay nit bu dee si grocery store la nga dem def application loolu laa la gisee te nga bàyyi fi mu nekk nii sa nguur gi daanu na Sam Sarr yow yaa yées yow yaa ngi fàttaliku fenn tooy yi fenn tooy fi fen fen yu rëy yi fi fen yow denied book bi yow kenn amut sa wa yow wiruloo yow da nga am mental problème Sam Sarr yow demal taxaw nga seetu New York siti googu noonu xam naa appartement ne nga dëkka ka sa ay mbóot la sa lekka doy sa béy na may nga bugg a tojal nit ñi yow saan saan yow xuuda xel aayu pour dem di wax a yaay jaame yow yaay kan yow nit ñi dañ la faale yow demal nga ut liggéey moom laa la gisee seen nguur gi moo fi jeex nii gis nga vidéo bi bu la naxaree nan ma call mbaa nga inbox ma Facebook ma inbox la suma nomba man maa yow wuloyee wuloyee yow dafaa neex parce que Amérique moom internet yi free la boo fayee sax moon nga fay xam nga wuloyee ka nekk Banjul moo métti waaye ki nekk Amérique na man maa la saaga yow yaa yées léegi laa dugg YouTube di déglu sa vidéo ngay dinaay tante ak nit ñi di gën a dëgër boppa sa kanami golo boobu noonu Sam Sarr yow yaa yées yow ba ngaa fen benn xaleel judduwut yow fen dafa dee nga juddu man maa la ko wax man maa tey man la ay dara li man dama la ragalu faalewu ma la faalewu ma la tey faalewu ma la ëllëg fen gi nga war a bàyyi te dem def application décembre bi jot na te mee ñu jaama mee ñu aafiya mee ñu happiness mee ñu jaama samsaar yaay yaay jaame sonal ngeen ñu jox ngeen ñu xaat attaque yéen nag ñoo jox di presse may leen may ñu jaama ñu am wérgu yaram bu ñu kenn rey ak wax yoo amatuloo dara loo wax xam nga ne gàcce nga desee sa kanami golo bi